asalaamaaleykum mbokk yeeg xarit yi nuyu nañu leen bu baax waat leen amaat mbégte ak kontaan te jàkkaarloo waat ak yéen comme ça su nekk ni ñu koy defee tey nag yaakaar naa ne ndaanaan la ñu dalal ku ne Aline Afia ne ndaanaan bu mag bi nga xamante ne ni ñëpp ràññee nañu ko ci Sénégal tey moom la ñu seet si euh, waa wasaare célébrité ànd nag ak suñuy naataango ñi nga xamante ne ni mooy waa Dakar di ak waa Midak TV ah ñu fas yéen nag seqal ak moom waxtaan bu yaatoo yaatu dinañu waxtaan si jaar jaaru ki nga xamante ne ni moo di Aliou Afia dinañu waxtaan tamit si li nga xamante xamante ni actualité la Sénégal jamono ñuy toll nii ba dañ koy bàyyi rek mu daal nuyoo bu ko defee ñu daal dugg ci waxtaan bi euh, Aliou nuyu nañu la. auzu billahi bismillah inna waliyallah jërëjëf Serigne Touba ke jara am maam Cheikh Ibrahima Fall Lambaat Mouridina gàcce ngalaama Serigne Afia Mbacke Falilou jokko jër Cheikh Ahmadou Lamine Bara Afia est-ce que Serigne Touba Serigne Mountakha Mbacke yal na ko sunu borom yàggal mu yàgg fi te ànd ak wér Serigne Cheikh sunu borom saxal ko njabootu Serigne Touba yëpp. di ñaanal suma yaakaar tey ëllëg Serigne Bara Mbacke Afia xalifa Serigne Afia Mbacke Fallilou yal na ko suñu borom wéral may ko wér ak gudd fan di jël nuyoo yëpp di ko teg ci sama loxo woy jur bu jigéen mi nga xam ne moom la ma yàlla desel di ko ñaanal suñu borom yàggal ko mu yàgg fi loolu te ànd ak wér di ziar mbokku taalibe yi rawatina fédération Matlabul Chifa bu Serigne Afia Mbacke Fallilou ah, di nuyu waa Midak TV ah, wasaare TV donc ak waa Dakar Midi ñi nga xam ne ñoo dagg seen yi tey ñëw fi tey fas yéene waxtaan ci lépp lu jëm ci sama jëmm ji ak sëriñ bi. kon yaakaar naa ni dañ leen ko waxee dégg ngeen moom nu mu nuyoo Aline Afia nag bu ñu ko waxee nepp ràññee nañu ko ci li nga xamante ni moo di zikrullah tey bu fekkente ne ni am na xele yoo xamante ne ni am xamuñu Aliou Afia boo ñu doon présenté kan mooy Aliou Afia. Euh, Aliou Afia nag donc xëy dama ci bamtuwaat rek ndaxte <clears throat> damay jëmm joo xamante ni euh, dama judd ci famille boo xamante ni dañoo sax ci aar may doomu artiste ci ndey ak baay sama pap ak sama yaay nekkoon ay acteur Sorano sama pap nekkoon acteur film sama yaay aussi nekkoon ci ballet national théâtre national Daniel Sorano samay mag <clears throat> samay mag nekkoon batteuru so bale bi euh, man ma ñëw judd ci euh, nekk ci jot naa jaar na ci tournage film ak sama waajur bu góor mais après par la suite àggali ma ko xëy na lii nag la yàlla ne woon lii mooy sama sama liggéey moo tax xëy na bi ma jaaree foofu nag donc fii laa mujjee wàcc muy liggéey Serigne Touba donc ma jaar ci yu bari ci yu mel noonu. jaar ci école bi jaar ci ci ci métier bi waaye teewul ba tey maa ngi xam-xamu métier gi euh, toog tey di liggéey Sëriñ Tuubaa. waaw dàkkantale Afia gi moom ku ne xam ne ni sama sëriñ a tax ñu ma koy woowee ndaxte sëñ Afia Mbàkke Fàllilu ku ku dégg Afia sa xel dem ci moom ndax moom moo tax ñu naan ñu Afia. ndax moom la Serigne Fallou jël tuddee ko Serigne Afia Mbacke Fallilu donc moo tax lu taq ci moom rek euh, Afia gi mënta ñàkk ñu la koy woowee ndax Afia gi tax euh, ñu naan ñu Afia. <laughs> dégg na ci say biir yi wax nga ne euh, ki nga xamante ne moo di sa waajur bi jigéen nekk si bale bi lan moo tax tey nga choisir métier bi li nga xamante ne moo di Zikroulah. waaw donc. lépp loo gis rek euh, day fekk mun méngoox coobare suñu borom euh, ñoom bi ñuy nekk ci wàllu film méngoo na ak coobare suñu borom waaye man ba ma ko tàmbalee méngoowul ak coobare suñu borom ndem jot naa ci def benn ak euh, sama wajur bu góor waaye après fii la yàlla namm ni ci sëñ Tuubaa laay laay fësee waaw donc sam nekkoon na koo xamante ni ak sama yaay soraana moom boo fa ne cëpp moom jaruñu jarul sax ñu naan la diw la donc yàlla joxoon leen ci nag ay mbir ndax représenté nañ fu nekk Sénégal euh, tey seen doom di représenté Serigne Touba fu nekk ci Sénégal kon donc loolu moom mooy fay gi waaw euh, mën ngay liggéey nag waaye yàlla fam lay fayee mun na bañ a doon ci sa jëmm ci sa njaboot gi la lay fayee ni donc xëy na nag euh, loolu la yàlla na mu tey rek jox teg ma ci yoon bi ngir may fasee ci Serigne Touba yoonu zikrullah bi sa waajur yi nangu woon nañu wala amoon ngeen ay xëccoo seen diggante. déedéet mosunoo bañ ndax ñoom ñoom Serigne Touba rek lañ yaakaar ay taalibi Serigne Touba fii kër Serigne Touba la <coughs> boo nee duggee rek ngay jàkkaarloo donc fii euh, daayira Serigne Touba la euh, xawoon nañ am jaaxle tuuti nag ndax jamono yi nga xam ne euh, daan naa guddee ci yoon bi te yoruma woon oto ñibbisi bi mu doon metti lool ci man. mu daan ma jaral may dem daayira ca ba may soog a door ci yëf yi mu metti lool parce que euh, tasoor ci xaar bu Serigne Afe Mbacke bi nekk pikin ci kuréel googu la la la tarbiya donc ma daan jóge pikin di ñibbisi di guddee lool ay deux heures du ma yor oto du ma gis taxi bu ma indi damay doxee pikin ba si Maris topp autoroute bi lu ne mënoon ma fa dalit waaw donc ma jàppante ko noonu di ko jaayante waaw ba tey sunu borom Euh, waxuma sax ma taal oto génn mais bu ma wootee ñu jël si ma nu mu gën a gaawee Serigne Touba moom ñu defal loolu euh, di toog muy dox donc Serigne Touba defal nañu loolu tey lépp lu ñu daan dox ci guddi gi risque mënoon ñu see tey Serigne tubaa noppal nañu ko donc dematuñu di wari leen dañuy toog jàpp ba seet jàng ci xasida yi ñaan ci Serigne Touba mu nangul ñu kon tey alhamdulilah ba nga xam ne ñoom liñ doon ragal. dara agsiwul ndax seen ñaan ñu doon topp bu ñu mosaan a génn war a dem daayira ndax ku ne xam ne ni jamono wóorul woon te tey la gën a wóoradi kon nag euh, xëy na ñoom loolu rek moo ci nekkoon seen problème mais bu dul loolu moom wax dëgg yàlla mbégte lañ parce que su ma su ma toogee rek bu ñu fi nekkee euh, bu ma toogee rek toog commencé yuuxu rek da ngay gis ñoom ñëpp dañuy dajaloo fii ci kër gi toog ci salle bi janoox man ku ne yor sa téléphone maanaam day mel sax dëkku ñoox man donc muy loo xamante ni euh, dama dama ci jàngaat lu bari lu baree bari bari bari bari ndax bu ma toogee fii dëkk sama waa kër di yeewoon ndox ñoom nga xam ne fii laay toog di bëri xale ci ginnaaw di basket ak ñoom tey ñoom bu ma newoon der ci kër gi ñoom ñëpp dañuy ñoom ñëpp dañuy daw ñëw toog ku ne yor sa téléphone di ma filmer man dama leen naan sax yéen man ak yéen dëkkuñu man mi ngeen di filmer <laughs> donc loolu nag euh, dañ koy santee nag suñ tubaab baax moo tax nag euh, waajur yi moom wax dëgg yàlla seen ñaan agsi na ci man. moo tax. mën nañoo xam ñaata at nga def si li nga xamante ni moo di sikurul laag. waaw sikurul nag ñu ngi ciy bëgg a yàgg ndax ba nu bàyyee jàng ba léegi ñoo ngi ci. waaw at ya moom mën naa ne jàppatuñ ko waaye daanaka ba ñu génnee ci wàllu nasaraan ba léegi ñoo ngi ci yoon bi ndax ba ñuy ne ci daara bi. dugguñu si rek tàmbali si quartier ndax daayira bi tarbiyu nañ ci ñaari at yoo xamante ni dañuy dem man personnel maay xëy euh, guddi àjjuma may dagg sama liggéey wàcc dem jëli rajo yi dem takki ko takkal ko ki ay daayira jóge fa dem jëli xiin yi yóbbuwaat ko ci daayira bi soo ko soo ko daw dem sangu ji bu ma sangoo profité retourné waat ñëw ci daayira bi jël micro bi benn bennal ba nit ñi dajaloo ma joxe micro bi ma jàppee ko noonu pendant ñaari at yu teg yoo xamante ni doonaguma jàngat donc bis bi nga xam ne nag euh, daayira am na soxna Fat Diagne bi nga xam ne ndeysaan sunu mag ju baax ñu nekkoon tasoor si xaar bisu daayiraam lañ ma njëkk a tàllal micro micro mu nekkoon pikin ko ñu syndicat mbedd bu yaatu bi te génn ci marché zinc bi bisu daayiraam lañ ma njëkk a tàllal micro ne jàngal wax dëgg yàlla guddi googu kawe lool ci man ndax loo daan topp ñaari at yu teg di dem di ñëw mosuma tëbal jeudi boo xamante ne am na keneen ku takk rajo daayira bi ku dul man mosuma tëbal jeudi boo xamante ne am na keneen ku yóbbu xiinu daayira bi ku dul man déedéet noonu laa ko jàppee woon di liggéey géejawaay di dagg sa liggéey di dem pikin préparé wu ba bis biñ ma naan saay micro gi dañ maa dox rek ma doxal parce que dafa mel ni loo xamante ne dama koy dama cee topp di ko di ko tarbiyu bisu tari bi jot donc moo tax at yiñ ci def moom mu ngi bëgg kii daal <laughs> mu ngi bëgg a sarma <laughs> loo bëgg lu nekk rek ci daal. waaw loo bëgg lu nekk danga ci waaw ndax loo bëgg lu ne boo ca nekkee heure boo jógee mu fekk si la te ñun si kar la ñu bëgg. rawatina bi nga xam ne maam Cheikh Ibrahima Fall làmp euh, moo saxoo woon sikar ci kër Serigne Touba tey ñun ñu doon ay baay Fall ñu xam ni kii ñu topp mooy waaja Babil Mouridina euh, moo tax li ma njëkk a am ci leer moom laa ko tuddee mooy sama taaw kon nag euh, loo bëgg nekk ca na la leer ne heure boo jógee moo la cay fekk dangay xool nit ku nekk ci lu mu bëgg rek ca lay faatu nit ku nekk ca la nga bëgg rek ca ngay faatu ndax saa yoo xëyee ci ngay dox kon donc ñun lii lañ bëgg bu ñuy faatu yàlla nañ ci faatu. yan jafe nga faral di jànkonteel ci li nga xamante ne moo di zikrulaay. non jafe-jafe yi ñu daan am nag xëy na ci cant yi yàgg ya lañ ko daan am parce que des fois nga daan dem cant dimension yi duñu tolloo ña ngi fay fekk xel yi tolloowuñu Euh, nga am problème ci biir bâche bi parce que am na si ay programme yoo xamante ne ful bi ni muy toll da ngay soxla sécurité dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg pour mën a taxaw cant normal parce que bâche boo xamante ne tey boo ci doon ranger ay 16 mënul jël cent 316 ba pare biir biir bâche ba 500 personnes nekk fa donc yow mënoo da ngay jaayante dëgg wala nga am sécurité bu mat pour mën a taxaw cant euh, des fois nag ñu dem ay cant daan nañ dem ay cant yoo xamante ne Euh, day mujjee bëri bruit ba cant gi mujjee yàqu donc man dañ may mujjee rawale ci suuf ci su ci suufu nit ñi pour mën ma génnee balaa gars yi di ma gaañ parce que tellement que y trop de monde dafay bari nit ñi dañ fay bari donc yooyu moom bokkoon na suñuy jafe-jafe moom mais jamono yi moom alhamdulilah parce que léegi programme yi ñuy joué boo demee fa ngay taxaw di cant ak fa nit ñi di nekk am na écart bu yaatu. sécurité dinañ doy jege dalaa jox addiya delluwaat donc loolu moom yëf yi changé na moom jamono ji changé na bu baax a baax. dégg ñu nekk ci li nga xam ne mooy jublu ak lu mu mën a doon seen jaar-jaar ndax xale yi dañuy xëy rek gis leen yaakaar ne amuñu jaar-jaar bu méttee métti Aliou Afia tey ñu gis na génnee single euh, dippee ko ki nga xamante nii moo di Serigne Bass Abdou Serigne Bass est mën nga ñu ñëwal foofu tuuti. waaw Serigne Bass Maam Awa moom da di da di da di da di sëtu Cheikh Abdoul Khafour di première sëtu Serigne Abdoul Khafour euh, muy jëmm joo xamante ni euh, ak taalibeem bu ñuy wax Papis di di joué wàllu acoustique donc ñu bokkoon benn bërëbu liggéeykaay ci sama manager bi ma doon njëkk liggéeyal. Serigne maa ngi koy nuyoo au passage parce que léegi léegi euh, ba tey xool yaa ngi liggéey ndax dafa ne Allemagne moo tax donc jëmm jooju sunu xamel fa la tàmbalee tey mu dem ba bëgg woy Serigne Bass ne ma dama am yëg-yëgu ngir ànd ci ak yow ndax comme yow yaa yëngu ci wàllu chant te man ci wàllu acoustique laa yëngu te Serigne bi mënu ma ko woy ci acoustique te dama ko bëgg woy ci wàllu chant ma ne woon naa la woo ñu waxtaan xool ma ne ko ah, ñaari mooy am. woy ko ci acoustique euh, son bi nañ ko joué ci acoustique boole ci ay xiin ndax yow nga mën a maîtriser li ngay maîtriser man ma maîtriser li may maîtriser donc nag moo waral boo dégloo son bi acoustique baa ngi ci xiin yaa ngi ci biir euh, wax dëgg yàlla mooy affaire boo xamante ni biñ ko defee it gis nañ ci njariñ ndax jàll na nit ñi daal ñi ko jot a déglu sentir nañ ko quoi waaye. ñu dégmal li nga xamante ne ni moo di màggalu Touba màggalu Touba instant yi bu ñu ko bu ñu ko jub dégmalee ñu bari dañuy naan eh, zik ñu nga xam ne dañuy yëngu ci wàllum zikkar fu ñu nekk Aliou Afia est-ce que mën lañ laa xaar ci li nga xamante ni moo di màggal bi nga génne wala da ngay fat toogaat ci sa rëpp jàpp sa njaam <laughs> waaw yëf yi moom xam nga dépendre dépendre dépendretul ci ci man personnel parce que comme liggéey moom dafa am am ñu ko yor am ñuy euh, donc man su ma sañoon chaque fin damay génne leen ndaxte liggéey baa ngi fi xel maa ngi fi texte yaa ngi fi tege donc ñun dañuy bind di teg rek donc ordre la ñuy xaar rek manager bi joxe ndigal euh, woote studio ñu programmé ñu ñu daje suñu répétition dugal la ñuy dugal toog xaar mais aussi xam naa nañu gars yi xaar rek ci màggal gi <laughs> bi waaw dañuy soxla nag vraiment. Euh, naa leen wax waaw rek ndax xam naa ni tamit yéene gi mooy waaw euh, ndax xam naa ne li may wax rek liggéey bi moom du man maay tëb rek joxe avis ndax abu mi euh, dafa nekk ci liggéey bi moom ci jëm boppam donc am na loo xamante ni bala maa tëb na ci sar moom danaa ko mu joxe idéem waxtaan moom mu wootenteex ñi mu war a wootenteel ñu waxtaan donc balaa may tëb def dara ndax man personnel mënu dem studio tëgg aw ségalal sam bopp te comme liggéey boo gis dafa am tête de liste ko yor muy manager groupe bi donc fu mu ne nii am nañ yaakaar ni màggal gi dinañ dégg neex. <laughs> am nañ ci yaakaar bu baax a baax ndax dañ koo tàmm ci yéen Aliou Afia dañuy dugg ci sa diggante ki nga xamante ne moo di Ndiogou Afia Aliou Afia Ndiogou Afia seen diggante yéen ñaar nu mu demee. xanaa neex waaw <laughs> diggante gu neex ndax frère bu bu bu bu bien la te it euh, macha allah il chante bien et ku baax la vraiment mënuñu ko waxal lu dul baax ndax ci lu baax li mu ne heure boo ko déggee ci loolu nga koy dégg heure boo ko gisee it ci loolu nga koy gis gaa suñu gisee bariwul nag <clears throat> ndaxte comme ñun moom horaire yi moo ñuy jiwaloo tey bu nekkee Medina maa nga Pikine tey mu nga Pikine man maa nga yëmbal tey ma nga yëmbal maa nga Thiès donc suñu daje nag la plupart ci màggal gi lay doon kër Serigne Afia Mbacke wala Serigne bi woote Medina wala war a ñëw Medina wala war a ñëw pikin lu ci ëpp loolu moo ñu dajale soit ñu am événement boo xamante ne ñu ngi koy préparé war cee ànd voilà bu dul loolu sunu gisee nag bëriwul quoi ndax bloqué na bloqué naa waaye déggante gi nag mu ngi fii ndax ñu ngi ci groupe WhatsApp boo xamante ne waaw muy fédération Madabul Sifaay donc ñu ngi ci communiqué waaw xol yi daal muy ñu gisee mais moom mën nañoo xaar Aliou Afia ak Ndiogou Afia ñu diwu waaw lu mën a nekk la euh, bu ko yàlla tuddee parce que ñaar ñu amul jot moom néew ma seen seen dara du nekk mais góomu mu gaaw parce que tamit euh, demande yi bari na te yàgg na mais xam naa ne de tôt tard aussi sunu borom mën na kaa dogal. gars du ngeen def ay démarches ñaar bu fa xew. noonu loolu loolu moom du du problème maanaam ñun dañoo tënku ci ndigal. ñun dañoo tënku ci ndigal am na loo xamante ne bu ko sëriñ bi joxee tey single bi studio bu ñu mën a fexe ba defar ko tey mu génn tey dañ koy def parce que ndigal loolu ah, kër Sëñ Afe lépp loo gis ci ndigal lay tàmbalee euh, ñu tëb rek ne maax moom dañuy ne bërët dem defi duo sans si ndigalu sëriñ bi ndem xam nañ ni sëñ bi buñ ko waxee lu koy neex la mais ndigalam dong lañ ci xaar ñu ci lenn dina jib ndax sénégalais yee ko soxla. <laughs> dina am ah. sénégalais loolu day am de. te boobaa lu lu doy waar lay doon te duñ leen may benn sax ay lañ leen di indaale waaw <laughs> ay waaw. <laughs> aja yaakaar naa ne na ngeen ko déggee ñu xaar kon euh, Aliou Afia ak ki nga xamante ni moo di Ndiogou Afia ñu daal def lu doy waar Aliou dañuy dugg ci li nga xamante ne ni actualité la Sénégal jamono yu ñu toll nii muy mbirum ki nga xamante ni moo di suñu papa Oustaz Iran Ndao nga xam ne réew mi yëpp fi mu nekk nii moom la ñuy waxtaanee moom mi nga xamante ne ni dañ ko taalal caméra site internet yi daal di koy seeti muy wax ci biiri waxam bone moom dugg na néegu góor ñaari yoon naka nga gisee loolu ci kilifa bu toll ni Oustaz waaw <coughs> papa Iran Ndao moom euh, xëy na li mu wax nag euh, jaar-jaar la nag ku ne am nga jaar-jaar comme moom nag loolu jaar-jaaram la ba mu ne moom dugg na néegu góor ñaari yoon ah man ci sama gis-gis gu gàtt nañ ko ko nangul rek parce que ku dem mag bu doy nu moom muskalaf bu doy nu moom imaam ustaas bu doy nu moom su demee ba yëg di kàddu wax ko c'est parce que am na fu mu ko teg Euh, waaw xam nga àddina nag dafa am loo xamante ni moom euh, bu ko nit di wax rek responsable responsabilité boppam la bu dee moom xoolu ni caméra moo ko tiim day wax ci digganteem ak boroomam seetul ni lii luy tas la walla seetul ni lii ëllëg dina àgg foo xamante ni nit ñi dinañ ci wax yu doy waar waaye comme moom nag jàpp na ni li muy wax seetu ci kamera seetu ci portable seetu ci dara donc loolu mu xam nga kenn mënu ci dara moom li mu jàpp mooy li mu li mu dund di ko partager ak sénégalais comme nag moom bu toogee toog ci télé bi ah man de bu doon man moom wax dëgg yàlla du ko def moom mais comme moom mi ko def nag li tax lim ci jublu kenn xamu ko waaye xam naa ni bu doon keneen ak keneen nit moom doo leen tàllal micro ñuy wax loolu donc nag euh, je vois que ni euh, man dama koy déglu. Iran même bu ma rëccee man ci télé bi damay dugg YouTube kar émission parce que ay waxtaanam lu may lu may bàyyi xel la ay waxtaanam lu may bàyyi xel la donc euh, loolu moo waral sax ma yëg lii mais bu ko defee bi ma ko dégloo dama jàpp ni Iran moom toujours euh, sañ-sañ bi ak dëggu bi moo ko yóbbee lii muy wax moo tax mu wax lii mu wax te seetu ci dara xoolul ni tamit tele la dafa jàpp ni lu mu war a génne la rek génne ko waaw moom laa lay wax ni xam nga nee naa la ci sànq ci biir wax ne la lim ci jublu moom dong moo ko xam li tax mu am sañ-sañ bi def ko ku ne xam ne ni Iran kilifa la njaboot na am na ñu ko yaakaar ci moom am ñu koy déglu mais tamit euh, doonu loo xamante ni it l'islam daf ko aayal pour tamit nit ñi bàyyi loolu xel mu toog ne xaraf naa ñaari yoon du lu binduñu ko fenn ci lislaam ne lislaam day interdit ku ko wax yaa ngi dégg xëy na rafetul ci kilifa ñu koy dégg mu koy génnee ci làmmiñam nit ñi rafetul ci xelu nit ñi mais doonu loo xamante ne bu ëllëgee yàlla duma la ci ci lislaam ne la lii dañ ko bindoon bërëb sàngam ci lislaam ne bu ko kenn wax yow nga wax ko ndax boo xoolee léegi euh, pourtant Iran li mu wax nit ñaa ngi wax lu gën a garaaw loolu nit ñaa ngi def lu gën a garaaw nit ñaa ngi génnee lu gën a garaaw loolu xëy na moom dafa wax rek ak turam ndax bu ko keneen waxoon amaana mën na bañ a siwee nii xëy na moom turam moo tax mu siwee nii mais Sénégal euh, lu gën a yéeme loolu mu ngi fi am lu ko gën a yéeme donc nag am na loo xamante ne moom man je vois que ni nañuy nañuy bu ab benn wax amee nañ ko tëb rek ñu bàyyi noonu mu jàll ndax te xam ni bu dul dara yàgg nañoo yee ci diine nit yàgg naa jëriñoo xam-xamam. nit yàgg naa jëriñoo xam-xamam nit yàgg naa jëriñoo ñaqam ma ngay dimbali waatee ko waaw kon nag pour man daal loolu daal waaw. say dooma lay seetaan daal nga bàyyi si xel bu baax a baax dañuy jàll si beneen actualité muy mbirum ki nga xamante ne moo di kunkande kunkande nag moo fi taxawoon ne jouru tam xarit dafay xat géej gi jouru tam euh, bu biñu ne si wala tam xarit mu génnaat ne puus na ko ndax day bañ ñu jiiñ ko li nga xamante ne moo di trouble à l'ordre public naka nga jàngatee jëf jooju jëf jooju nga du ma ne jëf sax wax jooju nga xamante ne sëriñ kunkande mu mag mi wax na ko waaw xam ngeen euh, booy boobu parce que duma ko tuddee sax sëriñ parce que am na loo xamante ni du fi sëriñ ñi fi booy la ñi fi xale la parce que Koukandé man <clears throat> Amadou Amadou moom turu Thierno àggul ci moom parce que Thierno kilifa lañ koy wax bu ngeen déggee Thierno Thierno du tur maanaam pël yi Thierno sëriñ lañ doon wax baatu Thierno loolu moo indi Thierno mais Thierno doo ko gis ci kàddante nit muy vrai tur mais cerno sëriñ la ñuy wax cerno mooy waral cerno cerno yi ngeen di dégg cerno boo gis am na tur ba ca tege moom la ñuy wax sëriñ diw moo tax ñu naan cerno diw mais am moomu nga xam ne tey toog na ci devant la public devant l'écran di di manipuler sénégalais yi ci xelu xalem conseil rek laa koy jox mooy bu mu amati li tax mooy euh, nit bala ngaa mën a xar géej day fekk nga tegu woonu yow ci lu neex yàlla sunu borom ndax yonent yàlla Moussa ma xaroon géej ga dafa demoon xare ji dafa demoon xare ji dem ba ca géej ga xeetam ngaw di daw firaaw na topp leen ba amatuñu fun jaar loolu ci xare la ko yàlla maye mu jël bantam gu sell ga ubbee ko géej gi ci ndigalu suñu borom mais mënul def foo sécurité am pistolet bi mu yoroon di ko yor di ko armé woo briquet la mooy pistolet briquet kon kooku xam naa ko euh, mënul xëy nag tëb tey ne dafay ñëw pour doon benn sëriñ xam-xam nag ma day dabe waaye ñun xam nañ ko yor xam-xam ak kuy leere nit ñi ñoom xam nañ ku yor xam-xam ak kuy lëre nit ñi taxaw na nag wax na lu ko neex euh, parce que bruit bi la doon ut te am na ko kontaan naa loolu nag ci préfet bu dakaar ndax fa la bëggoon na njëkk rëccee li taxoon mu ne bu ko préfet joxul autorisation mu dem Wakaam parce que gis nañ ci corona lañ nekk dañuy tere mobilisation te foo wootee xar géej àddina ñëpp dajaloo fa mu bëgg a wax loo préfet pour préfet ne ko loolu du fi nangu préfet ne ko autorisé naa la xaral géej gi. mais par la suite lan moo mujjee feeñ dafa jël xaalis bu bari fay ko lebu wakaam yi pour ñëw saboter événement bi pour mbañ am bi loolu bi loolu kalaatee ci la toog génn na événement bi dañ koy rapporter mais lu ñuy rapporter yow ki yow géej gi gën daraw la nee nañ la xaral looy rapporter. non mënu fi def bruit gis nga soxna si Sénégal dafa neex te damay wax site internet yi. nañu nañu nañu nañu bàyyi façon façon boo yooyu di génn di man di wax lu leen neex ñu leen di filmer parce que dañoo dañoo mujjee dem ba dañoo yeb sites léegi dañu ñëw dajale benn trois sites internet wax lu leen neex bëgg ku leen siiwal waat naa ci Cheikhul Khadim boo ko tegaloon mbuusu ndox mënu kaa xar gis nga luxus ak xam-xam duñ benn luxus ak xam-xam xaw ma ku ñuy nax ci yoonu sëriñ mais du man luxus ñu jox la kayit nga def mbir mu doon xaalis c'est différent c'est différent ak nit ku am xam-xam kon tubaab yi di def yi xanaa ñoom ay boromi xam-xam lan ñaata tubaab ñooy def marché ci dëkk bi bari nan xanaa kon xanaa kon ñoom ñu xar géej gi dem te bu ñu bëggee ñëw beneen pays dañuy uti visa lu leen tere naaw ñëw ñooñu ba ñuy marché euh, booy Amadou mi daa judd te ñooñu ku ci bëgg a déplacé wu dëgg ak dëgg avion ngay jël lu leen tere naaw parce que du xam-xam luxus toog ci télé bi ñu jox la këyit nga def ko xaalis dafa sore xam-xam Ahmadul Xadim xam na ni bu ngeen ko tegaloon paanu ndox ba 2021 bi du jeex mënul sax yëngal ndox mi bay xar ba di ko xar benn interview bu ñu seetaan moom nee na def doon natt sénégalais yi waaye xam na ne sénégalais yi dañu nooy bopp mu mel ni ko tamit sénégalais yi dañu nooy bopp ba ku ñëw rek euh, euh, caméra yi tiim la comme ni nga ko waxee nga nax waaw xam nga ñàkk respecté sénégalais yi mooy nga taxaw naan sénégalais yi ay golo lañ ay muus lañ amuñu xel déjà euh, moo lay wan ni manipuler na sénégalais yi ci lu ko neex utal nañ ko buzz ci ay waxam ba pare taxaw na xas leen dem na Côte d'Ivoire def fa lu wax lu ko neex mais euh, mooy li may wax rek euh, da doon saboté te benn saboteur bu mel ni Amadou moomu waruñu ko may benn succès sax. di jël caméra di ko tàllal parce que ñun Sénégal la ñu am sunu maam yi fi nekk liñ fi bàyyi kenn du ko salteel yaa ngi dégg kenn xamul jullit la moom kenn xamul yéeféer la kenn xamul li mu doon parce que bu dee jullit la dafa taxaw tey pour saboter lislaam parce que li fi yonent Yàlla def la taxaw pour saboter ko yow un jeune boo xamante ne yow yàgg nga dem ci boîte yi fanaan fa yàgg nga longo xale yi jigéen yi ba yàlla may la jàmm tey nga ne dangay ngay xar géej gi da nga ñëw pour sabooti lislaam yonte yàlla Moussa dañ ko mës a xam ci caaxaan yonte yàlla musaa bu doon caaxaan kenn du ko topp kon nag nit mënta caaxaan carrière am carrière am ba mu ba toll fii ñëw tey changer déguisement takk say lanti diw ba yàlla may la jàmm sol say déguisement yoo xamante ne da nga am sa téer mu lay këppatil ngay sol ñu ne da ngay taxaw xar géej gi mais teg nañ ko émission tegal ko bidon ndox ne ko xar ko lu tax xaru ko soxna si ñun leneen nga ñuy nax mais du xam-xam. xam naa boobu jinne yi moo ñëwutoon <laughs> dañuy waxtaan di ko bépp si nga xamante ni moom tamit actualité la balaa ñoo tàggatoo muy mbirum li nga xamante ni moo di mbënd mi fu mu nekk nii yaakaar naa ne bu xiinee sax njaboot yu bari dañuy jaaxle njaboot yu bari dañuy tiit ndax kat bu tawee euh, ñoom seen doom yi amuñu fu ñu leen taalal añ ñu si wel waa Kër Massar ndox maa nga fa ba léegi naka nga jàngatee def waa maa ngi masulu nag ñëpp ñi nga xam ne taw bi laal na leen parce que metti na metti na lool am na ñoo xamante ni bu xiinee rek seen àddina day tukki vraiment dara gën to metti loolu état sénégalais <coughs> dimbali leen doomi aadama yi maa ngi seetaan benn interview tey suba ñu ne dañoo jël sept cent soixante six milliards war ko def ci mbënn mi mais lii dafa ñaaw lii ku ne xam ne ni gàcce weesuwul lii mais ñun Sénégal nit ñuy gàccelee dafa ëpp 766 milliards waroon na tabax sax waroon na maanaam bu ñu tojoon Sénégal di ko di ku ne ñu lay tabaxaatal kër sax mënoo dépenser 766 milliards mais nañu waxante dëgg 766 milliards bu ñu doon jël Sénégal di ko dëraat ku tabaxal la sa kër mënoo dépenser 766 milliards xam nga milliards lan la. benn milliard c'est mille millions mais anamu tey lii mooy sept cent soixante six milliards ñii inondé ñii seen biir kër yi ci ndox mi la ñuy fanaan te pourtant gis naa fi benn image boo xamante ne Kër Massar fi ñu wane woon daaw deux mille vingt deux mille vingt et même ni mu meloon la mel mais ana xaalis bi mais dimbali leen doomi aadama yi te yàlla tax yëf yi metti na am na ñoo xamante ni ci ndox mi la ñuy fanaan. am na ñoo xamante ni ci ndox mi la ñuy lekk am na ñoo xamante ne ci ndox mi la ñuy dox te kum ci doonoon tey sa doom du la neex wala sa wéjur ki nga xam ne moom lañ joxoon mu ki gañoon projet mbënd mi na seet ci yàlla mu dimbali doomi aadama yi ki nga xam ne moom lañ jël 766 milliards yi teg ko ci loxoom pour mbënd mi na ko xool ni na ci xool ni tey bu doon yaayam moo ne ci ndox mi wala bu doon baayam moo ne ci ndox bi wala ay doomam wala ay rakkam wala ay sëtam mais nañ seet ci yàlla yoon mal xiyaam dafa am de ahmadul xadim xam na ni bu dee da ngeen yaakaar ni lii da ngeen koy lekk mu jigleen leen naa ci cheikhul xadim yenee tardé bu ëllëgee parce que lii àq la àq la lu càgg ni ci nguur nga nekk rek jox nañ la da ngay pasar pasare profito affaire bi du loolu Sénégal dañ ko war a defar du benn nit moo war a toog di dangi-dangi gis nga président bi lu mu daw daw daw daw daw daw daw daw bëgg defar Sénégal te entourage bi doon ay sàcc kenn du dem dëkk bi du dem tàggatoo te ngeen jàppale ñi nga xamante ne ni ñoo nekk ci mbënn mi ndax kat Sénégal euh, dañuy faral di jël li nga xamante ne ni du farata ñu def ko farata li nga xamante ne ni nag farata la ñu bàyyi ko mbiru kunkaande kunkaande yow nga xamante ni da nga doon xar géej gi sottiwul fexeel ñu nga nga naanal ñu kii ndox mi comme ça gars yi mën a nekk si jaamu Aliou lan ngay tàggatoo kunkaande mu naanal ñu ndox mi comme xar géej gi sottiwul kay bidon un litre bokk joxoon du ko naan bidon un litre mënu ko naan ba mu jeex euh, maa ngi ñaanal ñëpp jàmm <coughs> wax fir lana wa afina bi afiya yakun fi daara yi xayra afiya yàlla nañ ko sunu borom defal ñun ñëpp euh, di remercier tamit seen déplacement ndax léegi lu kawe la lu kawe la lool ci man di nuyu nag soppee Aliou Afia yëpp ñi ci Instagram bi ci TikTok bi YouTube bi Facebook bi euh, bàyyiwuma kenn fu waay mën a nekk ñi ne Sénégal Europe États-Unis Chine ak sama gars yi ñoom day laxe waa Japon maa ngi nuyu ñëpp euh, di leen ñaanal jàmm fañ nekk ndaxte amuñu tamit lu dul soppee ginaaw sëriñ bi ndax ñoom ñooy daw ñooy partagé ñooy abonné ñooy ñooy ñooy ñooy ñëw ci ci événement yi ñooy jëmmal donc amuñu seen fay maa ngi leen di ñaanal suñu borom euh, kaweel seeni mbir yokk seen i mbir ba nga xam ne euh, lu ñu yootu doon gëneel ñaan yàlla senegal yàlla def fi jàmm di ñaanal it mu taxa sunu borom saxal ko euh, di wax ni journée xasida gi ñaan nga nangu na euh, yàlla sunu borom wéral ko guddal fanam bàyyi ma kenn nag maa ngi nuyu ñëpp. di nuyu Pape Sène euh, manager groupe bi di ko ñaanal suñu borom jàmmal ko rawatina nag waa Adéane sama waa dëkk maa ngi leen di nuyu bu baax ndaxte euh, nit ku ne dëkkam la am te maa ngi nuyu sama waa réew moomu nga xam ne Adéane hmm, taxaw nañ ma saa su nekk duñ ma fàtte benn yoon kon nag mu laay aussi maa ngi koy ziyaare bu baax a baax a baax a baax di ñaan suñu borom wéral ko te yàggal ko barke suñ Tuubaa. d'accord dañ lay bàyyi rek nga <laughs> xanaa dañ bëgg ma <laughs> ma wax leen li jëm ci màggal gi. <laughs> moo gën ci dunya ak laaxira. sayduna muhammad yoneen yaa ni musal ci safara ñun dunu la weccoo dara ñoo bëgg yoneen yaa muhammad bur yàlla moonu nu wërsagal yonent bi ku la gëmul ku ko gëmul ba faatu dinañ la mbugal allahu akbar yaa muhammad doomi abdalaay ak aminata sunu sàkk yolmal xiyaam yàlla nañu bég ñun soppay seyduna muhammad ndax bokk ci xeetam doy na ndam jëfe su yi la mat a xam farata yaag ya ca des amal wasila jàpp seyduna muhammad saxaaba ya daan na ñëw ci moom saxaaba ya daan nañ ko lala sijaada muy toog seyduna muhammad jibril daan na ñëw ci moom àndil ko xibaari sun boroom saxaaba ya war ko na ca moom xar baax ya di feeñ yaa muhammad noon ya daan nañ ko lëjal di ko booleeg di ko mbugal ba mu xëy yàlla ni ko doxal man yónni naa la sayduna muhammad ñeen fukki ci ay at du ko sori calay woote gaaya di ko ree muy muñ billaay ki moo gore ba xëy defar nu sayduna muhammad saxaaba ya daan nañ ko lalal sijaada muy toog muhammad picc ya daan nañ ko keral ci seeni laaf te di ko teral bu dox ci naaj miir topp ko muy jël xeer ak ki doj soppi ko wurus ak jinne ki nit topp ko ki mooy gën gi jëm seyduna muhammad su ma saana tëdd bët yaay nelaw xol ba di gis kii moo fi raw yoneen fanaan na ci xuntu fanaan na ci xeer ànd na ak Ababakar lu nekk muy daj keroog la yàlla wàcce saaru naasi ak fallaxe mocce ko xayru naasi keroog la yàlla daaneel keefar yëkkati lislaam li doy na tiitar doomi abdallah rasulullahi maa leen may loolu. macha allah macha allah yaakaar naa ne xol seddati na waxtaan bi neex na waaye gën naa neex ci bi nga xamante ne nii dugg nañu ak dugg na ak ñun ci li nga xamante ni moo di mbiru yenent bi sallallahu alayhi wa sallam kon ñu leen di jaajëfal bu baax a baax jox leen rendez-vous bu beneen yoon incha allah tey moom damaa bari ay caméraman ñetti caméraman la am kàggu sama chéri ak waa Midadi TV ah jox leen rendez-vous bu beneen yoon allah ak keneen i jaajëf.